dafa dañ la ko bu dee ñaari moo sax parce que yàlla dafa dogal yow li Omar wax ba ngir wax ko yow da bëre ak Moussa yàlla na ko yàlla jéggal mais dafa mel relation bi tamit donte bëre ngeen mais relation bi mujj na rafet ba yegg fu doy doy daal. wax baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax yàlla si yàlla lañu jógee ñëpp lañ ci moom lay delluwaat ñaala Moussa Diop yàlla na ko yàlla sama borom fay àjjana instant bi ci biir la nekkoon waxtaan foofu ak ay waajuram moo tax mm-hmm. instant bi mënumaa wax mm-hmm. Gris Bordeaux lépp nu waroon wax na wax na ko mm-hmm. Balla Gaye lépp nu waroon a wax na ko may nuyu suma rakk saa kees di nuyu français bon mu kulle fi teew ménagère ñëpp xam nga Moussa Gueye daal li ñu koy ñaanal mooy yàlla nag yàlla son borom fay àjjana yàlla doj rek lu mu doon def ci àdduna bii te fi mu génn àdduna yaa ngi dégg yàlla di weddi boppam Seydina Mohamed la yàlla yónni gën ni muy def di weddi boppam moo ne jullit bi génn àdduna ci weeru koor kenn kenn du la laaj dara directement àjjana la kon nag ñooñu yàlla suñu borom defal directement àjjana yàlla na ca Moussa Dioum jiitu ndax nit ku nekk boo ñaanal nag wax dëgg yàlla journaliste yéen na ñaanal seen mbokk journaliste yi ngeen a ñaanal waaye ñun bëri bu ñu ñaanal ñun dañuy ñaanal ndax ñu ñëpp kenn ku nekk bu la dara dalee mm-hmm. yaa ngi dégg kenn ku ne doo doonelawu ba set da ngay yàkkamtee xëy ba dem muy bànneex ba muy naxaar ba ci sa moroomi mbër mm-hmm. te ñun ñi ñoo bokkante ak baay billaahi wallaahi tallaahi jàmbaar mm-hmm. maa koy wax toujours ñun ñu yaakaar waxi dof laay wax lamba gi du dara am fola billaahi wallaahi tallaahi am fola amul kenn kuy génn àdduna malaaka bi ne la tëf tëf di laaj ndax da nga doon amul sa jëf ju baax moo fay teew yaa ngi dégg Gris Bordeaux li mu waxee nii la war a wan a waxee te loolu moo yoon ndax yàlla moo dogal ñun ñëpp ñu ne ci làmb ji ñu jiital ko mu ne suñu président comme li Balla Gaye wax léegi rek képp ku xewle ku nekk rek boo tunee da nga koy gis ko yàlla na ko yàlla sama borom ak yàlla sàmm ko yaa ngi dégg Balla Gaye muy boo xamante ni yaa ngi dégg bu ñuy wax ñi gën xool ci làmb ji gën a laabir ci làmb ji gën a tabe nit koo xamante ni maanaam yoru jukki mbër nan ci moom kon yàlla na ko yàlla sama borom aar yàlla aar Gris Bordeaux su ma rakk saa kees yàlla na ko yàlla aar Frazier yaa ngi dégg ñoom ñëpp maa ngi jégalu si kàddu yi nag quoi Moussa Diop daal may ñaan la yàlla na ko yàlla sama borom fay àjjana ak mboolem bi lu nekk mel am rek loolu la quoi vraiment ok am na solo grand champion ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw ñoo lay fay Fatou Biar maa leen lay fay bu baax di leen ziar tamit ku ne xamoon na la sa digganteeg euh, Moussa Dioum tey bi nga yëgee xew-xew bi ban réaction nga waaw métti na di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lii mi ko yëgee métti na trop métti na trop trop trop trop ndax sama grand bu baax sama mag sama nit moo génn moo dem métti na trop trop trop trop waaye nag kenn mënu xëcc borom bi comme moo ñu fi ànd ñuy dox mission ku mission bu jeex da ngay dem. di ko ñaanal rek yàlla yërëm ko te xaare ko àjjana di ko jaale njabootu làmb ñëpp njabootu làmb ñoo ñaax te ko xool Moussa Dioum tey jii fii fi ma toog ni indi set Moussa moo fi indi làmb kon nag indi làmb indi set ba tey jii ñun ñun tey jeunes yi tey jii bu ñu demee ba dugg si làmb yàlla ak moom la man bu may ne xale ba léegi Moussa moo ma yor man Farou Diar bu may ne xale ba léegi Moussa moo ma yor Moussa nekk na nit koo xam ne tey jii su ma la naree wax ay ay doléances duñ fi jógee waaye dinaa la xamal lu lu lu lenn si Moussa Dioum Moussa nekk na nit ku baax wallahi azim nit ku yëg doomu aadama fu mu romb fu mu doomu aadama ko fa tàrreel Moussa mënu romb nit nii romb la te du la muy xale muy mag day kaf xaf xale yi kaf mag yi kon nag maa ngi koy ñaanal bu baax fu mu tëdd ne yàlla nag suñu borom biram yàlla na ko yàlla xaare ajana yàlla jégal ko ay baakaaram waaw ak mbooloom julli ñu fa fekk. yan kàddu ngeen mujjee uh, weccoo yéen ñaar. bu may préparé sama combat bi passé rek ndeysaan ñëw na ba école daanaka mag moom ñoo ko préparé ndoo combat bi passé donte gis na ko da doon sooxale feebar waaye mënul toog day sooxa feebar da ko doon sooxale waaye mënul toog combat bi passé ñoo ko préparé ndoo mu jàppale ma si bu baax a baax a baax a baax barki yonent bi mu ne ma far mu ne ma naa mu ma jàppal ne drapeau passé mbooloo yoo yaa ko téye yoo téye drapeau passé mbooloo lu baax lu ma lay wax te sa papa sonn na yaa ko war a jàppale kon kooku rek yàlla waroon na fi bàyyi ba si kanam ba mu ba mu. kàddu yooyu lañ mujjee wénteen dama ak moom. billaay azim te jour boobu nga ko mujjee gis. avant jour boobu gis avant après combat bi tam gisante nañ ma ak en plus mu félicité ma waxtaan ni daal yàlla bu koy gis euh, nu mu la wala loo ko fekkoon ngay def. Moussa bu koy mujjee gis. Mm-hmm. bu koy mujjee gis dafa doon da doon dem entraînement bu koy mujjee non non avant avant avant avant feebar bi sax waaw waaye da doon waaw da doon dem entraînement da doon dem entraînement moo laa mujjee gis ñu toog ñu toog ñu toog fële suñu sama sama sama bu duggaale mm-hmm. mu doon mu jugee mu jugee saal romb foofu nag mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. xam nga Sadio feebar bi dafa nekk loo xam ne comme li may wax rek da doon feebar waaye da ko doon nëbb nit ñi ndax ndeysaan bañ a toog comprendre di ko borom borom jom la quoi bañ a toog da ko feebar bi waaye boo ko xoolee nga di nga xam ne Moussa ñu sox wérul billahi borom bu dogalee moom kenn mënu dara waaye nag yàlla moo tuddee nii xëy na nii la ko yàlla tuddee métti na trop métti na trop. nan ngeen ko dundee fii ci parcelle. ah naqar rek naqar bu ñëpp bokk. waa am naqar démb bu ñu yëgee ne Moussa ndeysaan noppaleku na boo xoolee tey jii aduna bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp amuñu jàmm téléphone yi jàppal bàyyi far Moussa Moussa Moussa man ah loolu borom dogal billaay wallaay wa kitaabi lu mu la fekk ngay def démb dafa fekkoon ma jugoon entraînement fekkoon jugoon entraînement ba waaye dugg sama kër mm-hmm. woo ma waaw sama benn copain mm-hmm. a woo ne ma ah far dégg nga est-ce que yëg nga lu xew mu ne ko lan munoo Moussa dafa gaañ waaye man xamoon naa ne instant yooyu ndax am na ku ma doon dégganteel ma war a ko dem seeti sax ci hôpital jour boobu ma dama bëggoon dem seeti ko mm-hmm. yaa ngi dégg mu ne su ma xëyee damay dem dama xool ndax saa sama papa wax na ma ne Moussa dafa feebar na waaye sonn na ma ne ah kon de su ma xëyee incha allah rabi dinaa dem seeti ko. mu la woowee nag sa la njëkk bu ma woowee ne ma ndax jëngalu xew ma ah, effectivement kon de looloo am ndax day mel ni Moussa Diouf bu may dégganteeg sama papa rek mu naan Moussa dafa feebar ba sonn kon xam naa ne suñu borom looloo dogal waaye nag dogalu yàlla moom. bu soxlaa ñëppay ñëppay ñëppay ñaax ñëppay ñaax ñëppay ñaax billaa wallaahi wa kitaabi a ah, di ko ñaanal rek yàlla suuf oyof ci koom rek waaw di ko ñaanal ndax man weeru koor gi tey jii boo xoolee ci dix ci fukki fan yu mujj yi fukki fukki fan yoo xam ne weeru yërmande la loo fi ñaan suñu borom suñu borom defal loxo mu jégal la ay bàkkaar kon yàlla na ko suñu borom jégal ay bàkkaar yëpp yàlla na ko Seydina Muhammad teeru fële ak mboolu mu julli ñu fa tëdd yëpp yàlla jégal leen loolu laa koy ñaanal di di ko jaale yaayam di ko jaale waa parcelle di ko jaale sama bopp di ko jaale waa unité 7 tamit di ko jaale waa seen famille waaw yéen amuñ seen fay yéen journaliste yi ñoo leen leen ñaanal bu baax ndax affaire bu mu amee ba léegi toogoo leen bis bisa matin ba léegi neen fii dëkk seen yite ñëw toog comprendre kon yéen tey amuñu seen fay seen liggéey rafet na trop di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm yéen a xam li ngeen bëgg ci weeru koor gi yàlla nag suñu borom kontaan si trop nag ñoo ko bokk jërëjëf jàmm ji maa leen koy maa leen koy delloo incha allah amin waaye yàlla yàlla defal jàmm ok merci mbokk yi mi ngi noonu kooku mooy xaadim Anta Seck xaadim Anta Seck nag ku nga xam-xam ni xaritu mbëri la day demalante ak ñoom di dikkalante ak ñoom xaadim tey ñu am euh, bis boo xamante nii dafa tiis lool ci axlu làmb tiis ci axlu euh, àdduna bi nga xamante ne nii euh, ñëpp xam nañu Moussa Dioum tey ji bi nga yëgee xibaar bi nan nga njëkk a réagir waa di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mhm. ci yàlla lañ jóge ci yàlla lañ delluwaat mhm. yàlla mën a kullu nafsin saayixatil mawti mhm. bakkan Euh, ki fi jógee nekkoon euh, jàmbaar nekkoon champion nekkoon nit ku baax vraiment bi mu bëri fii la ñu fekk ñu dëkk moom dëkk bu rafet mosuñu koo dégg ci dara lu ñaaw mu nekkoon Pikine jóge fa nekk sàkku xam-xam ñëw créé écurie Parcelles mbooloo en 2009 ñëw dugg ci kalaaf li mu doon def bay ci waaram ba Sénégal ràññee ko ci mosuñu koo dégg ci lu ñaaw te bis bi mu demee nag njort rafet nañ ci njortu fukki fanu njëgal gi la demee ci weeru koor kon loolu weeru koor ku nga xam ne xam ne weeru yërmande la te mhm. ñaan yàlla suñu borom cat bañ koo jiir ci bàmmeel vraiment ku baax la woon man bi ma koy mujjee gis ci décembre bi laa ko mujj woon gis mhm. tasee fii inte cinq mhm. mu entraîné ba génn ma génn dem côté inte ñu dajee ñu waxtaan nuyoonte saafante fu mu la fekk da lay jox cër nuyu la loolu ku baax moo ko borom xol bu rafet moo man loolu yéen ngeen mujjee weccante bi am na benn boyam doon waroon bëri ci combat xoyantaan bi suma jumul Ibra Ngaabu waroon voilà waroon def open press mhm. ci loolu lan lan mujjee wax mhm. ci wàllu open press mhm. maanaam open press dafa war a am ak affaire yooyu di wax ñi ci waxtaan daal après ma gisaat ko ci làmb ji moom daal nekkoon na nit ku baax ci gàttal te man li ma ci gën a marqué dafa doon ànd ak sama benn papa bu ndaw Ibra Ibra woo ko ñu woo ma téléphone di ma wax Moussa Dioum ak tonnerre pour revanche ma mm-hmm. ne Ibra dama perte numéro am wool Moussa Dioum mu woo ko. Mm-hmm. daal di jot rakkam bi bàyyilaat. Mm-hmm. mu xamal ko ne ko dafa tawat. matul moom boobaag léegi deful sax deful sax trois jours. léegi bàyyilaat démb bi ñu ko gisee mu ne Moussa de wax dëgg yàlla doon na seede ci Ibra ne def mos na ko invité defal na ko ay teraanga. ma ku nekk ci lalu hôpital di seedal lu baax kooku borom xol bu rafet am am nañu njort daal ci moom na ne suñu borom dina ko jégal te ñun nag bis bi mu am ñun de ah man de bëgg naa ko am. su ma sañoon da yàlla suñu borom bu ma jël mhm. jël ma ci weeru koor rawet na nag fukki fan njëgal bi mhm. yàlla na ko yàlla yërëm xara ko àjjana ci barke Sëriñ Touba te rafet na suñu njort yóbbu nañ na yàlla bu ko cat jiir ci bàmmeel ku baax la woon mhm. nit ku baax na sonn ci nit borom xol bu rafet nekk na fi ba fi deful lu fi ñaaw yàlla na ko yàlla yërëm xara ko àjjana roi des arènes Modou ak ñoom Papa champion yi nekk parcelle yëpp ñoom franc yàlla na ko yàlla yërëm xara ko àjjana jërë ngeen jëf mbokk yi defe naa ni euh, ñu ngi kenn koo xamante ni moom it kenn du ko présenté ci wàllu làmb di koo xamante ni nii ndaanaan la Modou Anta sans frontière Modou maa ngi lay nuyu di la ziar. Alaaji Xaadim Caam maa lay nuyu bu baax a baax di la delloo ziar sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi di baal àq si koor gi di balu àq di wax ne yàlla yàlla jéggal suñu ay bàkkaar ubbil ñu suñu bunti xéewal yombal suñu mbiri àdduna suñu mbiri àllaaxira la siyaar bu baax a baax di la bëggee di jox sa wàccuwaay wér. tey tey ku ne eh, yëg na tiis bi nga xamante ne nii moo dal ci axlu làmb dal ñëpp tey ji ba ñu doon defal ay témoignages euh, sa digganteeg euh, ki nga xamante ni mooy Moussa Dioum yan kàddu la mën doon. waa témoignage yi mën na ne mën na bëri mën na bañ a bëri parce que Moussa Dioum yaakaar naa ne si làmb lañ xamante donte ay mbokk lañ sax mais mbokk yu ma xamul parce que tamit bawol bawol yi moom mën na ne ñëpp ay mbokk lañ ndax man maa ngi dëkkee Lambaye bawol moom ngi dëkkee Réfane mën naan na sori na sore wuñ bu la neexee boo fay dem dugg oto bu la neexee boo fay dem dugg sareet boo ñemee coonaat mën ngaa dox waaw wax dëgg yàlla mu nekk nit koo xamante bi ni tamit nit ku baax la yaakaar naa ne ñoom bu ma juumul ñi ngi dëkk Saamen Moussa Dioum Baye Bada Jonn ak Tafatin ay ñoom seriñ Ndour ay Ama bu Saamen ay Mapaate Fay ñoom ñoo ngi dëkk Saamen quoi wax dëgg yàlla mu nekk nit koo xamante bi ni nit ku baax la ba man avant ñuy woor sax maa ngi am lu ma doon préparé ak moom ma woo ko mais boobu daf maa nax dane ma Modou Anta dinaa la woowaat yow suma ma waaye nga dinañ def interview bi sama papa moo feebar xam naa ne boobu kon boppam la ma wax sama papa sama papa moo feebar xam naa ne bu lii passé rek incha allah dinaa la woo yow ñu def interview yow su ma waaye nga ma ne ko amul benn problème maa ngi lay déglu wax dëgg yàlla nag mu nekk nit koo xamante bi nii maanaam tey Moussa Dioum bu xëyee nekk roi des arènes du ne lu tax parce que Moussa Dioum mën na bëree fit Moussa Dioum capable na ci biir géew te nekk na koo xamante bari na mburu parcelles yi fii yëpp buñ bëggee làmb grâce à Moussa Dioum ku ci mel ne Modou rek le roi des arènes daaw fi jóg ñoom ñaar xamante nañ bu baax parce que Moussa mi ngi jàngee mën naa ne force tranquille ku fa jaar jaar sàkku xam-xam ci Birahim Ndiaye jaar fa Laye Balde ba ñëw ber sa daaray bopp kon yaakaar naa war ngaa mokkal bi mu beree boppam nag di parcelle mbooloo mu ànd ceeg gaal Ndiaye mais ngay seen muy romb la grand champion moom it di nit ku baax wax dëgg yàlla mën na ne carrière bi yàgg na yàggut mais nag am nañ yàqin ci moom bu baax a baax a baax parce que tamit Bamba weeru koor dafa nekk weer woo xam weeru sell la kenn bëggut a dee léegi mais nit ñi bëgg nañoo am léegi ah mais tamit képp kuy génn àdduna tamit bëgg nga génn àdduna si weeru koor yàlla na yéex nag parce que weer la woo xam ne weeru yërmande la daan na awaluha rahma wa awsatuhu maxfira wa axiruhu itqu mina naari moom yaakaar naa ne dafa bàyyi ba itqu mina naari mu dem fi nga xamante ne fi la ñuy goree la jaam ñi ci sawara macha allah képp koo xamante bi nii génn nga fi àdduna yaakaar naa ne dinañ am njort bu rafet ci yow wax dëgg yàlla nag loolu rek lañ mën a wax parce que ku dul may sa bopp ku nekk loo am rek da ngay doylu parce que suñu borom moo ñu andi si kaw suuf parce que yaakaar naa ne bépp liir bu fekkee ne da ngay judd da ngay ngëb sa loxo jooy ne jàpp naa àdduna noonu ngay def ngëp sa loxo léeri bu ñuy judd dañuy ngëp seen loxo jooy ne jàpp naa ko bàyyi booy dee da ngay tàllal say loxo sa benn ceer du banku da nga naan bàyyi naa àdduna te dootuma ko jàpp mu nekk loo xamante bi nii nag doy na waar mais nag dañuy dellu ci aaya ba rek kullu nafsin saa'iqatul mawti kullu man alayha fanin bépp bakkan bu ñam dund di nga ñam dee lépp loo xamante bi nii tooyan na dina woo ah yàgg na yow Bamba yàgg na gars yi ñoo fi nekk ci détails yi nii rek ay alalu àdduna ay daraja ay maa nekk bi ay maa nekk télé bi ay maay diw maay diw yooyu amul sens li am sens moo ngi nii mooy dëgg gi buñ la ko dee wax nag maanaam doo ko xam doo ko gëm te bu fekkee ne nit la koo xamante bi ni saytaana dafa ànd ak yow doo ko gëm parce que alxuraan dana la wa jaal naa ala eh, ala xulóobihim aakinatan maanaam ñi nga xamante bi ni gëmuñu yàlla day def seen xol yàlla seen xol da ciy def ëkk da ciy def ëkk goo xamante bi ni maanaam booy wax ak ñoom luy dugg jëm ci suñ borom sax duñ la dégg duñ la dégg nekk nekk na loo xamante bi ni nag dafa doy war parce suñu borom sax waay moom rek a fi nekk keneen nekk fi gars dañuy caaxaan rek ngay nekk gis koo xamante bi nii tey day nekk fii nii bët seet mu yor micro rek bu rombay seen koñ dootu leen nuyu wala bu ko gars yi vocalatee duñ leen tontu mm-hmm. te pourtant nit kese nga da ngay def yëfu nit muy muy dem duus da ngay def yëfu nit muy nelaw da ngay lekk da ngay naan te yaakaar naa ne Moussa Dioum tey bu mu génne àdduna ni li mu mënal boppam mënalatul boppam dara di moyes lu mu man lu mu defal boppam lu nekk nit ñi ñoo ko defal kon maanaam koo xamante bi nii xamoo koy jàpp sa jaag koo gis war nga koo jox cër tey mën nga bu nit ñi di ko suuf si semé di ko soofantal di ko def benn te boo dee moo lay xeetale wala mooy jàpp sa jaag mais wax dëgg yàlla am na yàqin ci bu wér Moussa Dioum. mais lan moo la gën a marqué ci moom. li ma gën a marqué ci moom mooy bëre bi bëre bënn bi bërëb bu rëy bi te dëgër fit combat bi ma gën a marqué mooy digganteem ak Tonnerre nekk na combat boo xam ñoom ñaar dañoo bokkoon pikin Tonnerre nekk Pikine ba pare di ñibbi yëmbal Moussa Dioum nekk Pikine ci falaay ba pare di ñibbi si parcelle combat bi nag nekkoon combat derby kalaaf boole leen muy Tonnerre Rock Mbalax Moussa Dioum Tonnerre Rock Mbalax Moussa ak Modou Diouf mu nekk combat boo xamante bi doy na waar trop combat am ak moo ko déclenché Tonnerre booba kenn daawu ko laal ci tànk bi Moussa Dioum xam ne man mii bu ma ñëwee bëgg a bëreeg Tonnerre dina métti ci man mu dem wuti doole ba mu doole ba am ko mu ñëw xam ne tey bu wureeg Tonnerre ci bëre bala koo daan dina jafe mu samp jaaga xeex ak moom. door ko door yi métti ba bi mu koy daan sax Tonnerre gëmul ne Moussa Dioum daan na ko mu nekk koo xamante bi nii dañ naan fu ñu koy jëleeti fu ñu koy jooyeeti waaye nag loolu la yàlla dogal. waaw bi ma ko yëgee nag Bamba doy na waat trop wallaay lancé yàlla rek ma tiim damaa wóor benn groupe laa bokk muy groupe bu Modou Baye Fall Momo production ma jeg saa gis benn gaan Aziz la xaw ma wàcce ma bindal ko ne ma yow gaan lan nga def nii yow Moussa Dioum Moussa Dioum nga wax ne dafa gaañu de tontuwuma ma jël numéro am ci group bi envoyé ko PV tontuwuma barke alxuraanu karim ma yëkkat sama téléphone woo ko téléphone parce que moment boobu maa ngi xat te boobu soxna si mi ngi teg reer bi mais dama ne ko tegal ne ma lijjanti lii ba pare maa boobu maa xat bi ma ko woowee si la ma expliqué ne ma dëgg la de ma woo sam benn gaan bu dëkk parcelle xës mu confirmer ma loolu. yaa xam léegi ma gëmatuma ko ba tey ma woo góor a soog mu confirmer ma loolu ma woo bës mu confirmer ma ko ma ne bi jeex na dara jërëtu ko fi dara dara dara dara na nit ñi maandu rek te dellu ci yàlla te jéem a yaatal xol yi te xam ne kenn mënul dara bàmba wallaahi maa ngi lay jaajëfal yow bu baax di rafetlu sa liggéey wax dëgg yàlla macha allah. mën naa ne bi nga ci ñëwee a yow yem yàgg na yàggut mais yaa ngi ciy def waat bu am solo maa ngi lay jaajëfal bu baax